dof nañ leen kenn ku nekk ci turam ak santam seen émission li ci xel yi dalal kenn benn ndaanaan di tur wuyoo ci turu Ahmadou Dofu Bamba yi muy artiste muy artiste day guitar macha allah day woy waaye moom dafa am fu mu féete ci woy wi lu mu choisir côté boobu muy féete muy partie religieux bi mu choisir ci ci musique parce que ku ne musique xam musique dafa yaatu Ahmadou ñu ngi lay dalal bu baax baax seen émission li ci xel te naan la salaamaaleykum. asalaamaaleykum ziare Faroxo di la màggal di ziar kullihum di ziareti suñu sëriñ borom daaru al muxti di ziare kullihum mboolem Baye di ziar. mbokk taalibe yépp dafa maam Bamba baa ngi nii waaw. waaw dafa maam Bamba gannaaw bañ la nuyoo ba pare bu ñu bëggoon xam dafa maam Bamba mooy kan lan nga nuy wax. waaw dofu maam Bamba yi maanaam mbooloo lañu daal mooy ñi nga xam ne daal dañoo dof ci sëñ Touba li nga xam ne dañuy jëfee ndigal di bàyyi tere fu sa sëriñ wootee nga jiitu fa di ko ñaqal di jëriñoo dofu maam Bamba nag dafa bëri forme daal selon yow ni koy jàppee ndax dof. moo bi mën na manière propre sens propre mën nga ne carrément lii li muy wax nii lan la la mooy dofu maam Bamba na Bamba amul dof waaye suñu nee dofu maam Bamba dafay fekk da ngay dof ci li nga gëm waaw xër ci moom ndax loo gëm te dofoo ca rek dafa fekk dafa des te lu waaye gëm nag soo si dofee nag di nga si gis njëriñ ndax dangay gis kii sax ñu naan la waaye waa ji dafa dof si basket mooy maam dafa aay si basket wala ñu la waa ji dafa dof si musique maanaam am na fu mu dofee daal. waaye ñun suñu dof si maam Bàmba lañ ko jublu suñu aayaay ak suñu mën-mën suñuy xam-xam suñu lépp dañuy jël jox ko ko moom ba ba nga xamante ne mbedd bi sax dañu ñu ko yàgg di wax yéen ay dof ngeen yéen da ngeen loolu am rek sëñ bi sëriñ bi sëñ bi sëñ bi topp sëñ bi rek yéen xanaa yéen nii yéen da ngeen dof nii yàgg nañ ñu ko wax si forme yu bëri ñu koy accepté ba tax tey muy confirmation voilà muy leer. li ngay def na ko waxee rek loo ne lu ne da nga xër macha allah waaye lan moo la woyloo. waaw woy moom dañ ci yàgg ndax sikaru laa moo tax ñu ñu mën woy bu ñu tàmmalee di woy c'est à cause de sikër dañ daan guddi ajuma di sikërantu nekk xale yu ndaw ndax à l'âge de 12 ñu ngi tàmmalee di sikërantu si école yi di dem fépp après nag sëñ bi jël ñu jaarloo ñu ay mélodie divine malgré yàgguñu fa sax génnaat foofu am suñu ay magum taalibe yoo xam dëkk ak ñun tamit di ñu former ci musique di ñu jàngal gitaar di ñu jàngal woy ba tey jii nag mu war a doon confirmation mbokk taalibe yi nag ñoo mujj sax dem nañu bàyyi par force yéen da ngeen di génne ndax ñu jubluwuñu ci sax pour ay siiw wala pour nekk ay ngandi artiste wala yooyu juste dafa am message boo xam ne dañ ko war a wax dañ koy wax ndax dañ koy wax ci ci yi di ko wax lépp te dafa am révolution musicale boo xam ne sëñ bi da def moo tax ñun ñu siy jublu sëñ bi di musique di ñu wan nan la ñuy musiquer mais nag dañuy mel ni ñoom te duñ ñoom ndax ñoom ni ñuy musique ak ñun ni ñuy musique ndax ñun dañ ciy jublu ci yàlla di ci wax yàlla di yee nit yi fan nga jàngee guitare guitare moom abba jadda bi li ñuy wax noonu loolu dóore mi faaso laa si doo bi loolu moom jàngee naa ko ay mélodie divine mais après loolu nag si laa génn man may nekk may dëkk mélodie divine sa jànguma woon guitare foofu bi ma génnee nag ba bàyyi nag si la musique nag gën a dugg ma dem commencé sama benn magum taalibe bi ñuy wax maam baara yàlla na ko yàlla yërëm moom moo tax ñuy musique ni moom moo ñu forme si lii teg ñu këram di ñu jàngal ñuy sikkër di aw ba tey. ça fait ah, bi moom yàgg naa si quoi. guitare beeg woy bi yëpp. guitare beeg woy beeg yëpp yàgg naa si mooy comme li ma la wax rek. <laughs> peut-être guitare bi sax moo mujj mais way bi moom dama si yàgg torop mooy li ma la wax rek dama si yàgg depuis ay sikkarantu. lan nga nu mën a may si guitare bi léegi. waaw guitare bi mën nañ ci foo rek. dangereux lañ koy woowe biiba waxal sa nangu nañ ne yaanu moome biibam sa ku dul ñu nit moo ko moom biibam sa sin kun alxaati teew na biibam koy woowe

daaw ko tuddee woon ko naka. dofu maam Mbambey loo gëm loo gëm dof ci waay la le titre son bi tudd. naay si koor yi ndal di woori jógal ngay wattudu waay baba ji bang la bong la dala sa boog ñu fay la ah waxal waay ah, loo gëm dof ci waay jaajëf loo am def fa waay merci ndaxam dangaa bëgg rat leer loo gëm dof ci waay jaajëf segam dangaa bëgg yaatu loole

te mokk neex aw làmmiñ oyof tollu saf xob làmboo ki kersa allah léegi yéen yéen ay single rek ngay génne album bi kañ nga koy génne. waa album bi ñu ngi koy waajal du yàgg dara dañ bëgg def ay quelques singles ak quelques clips ba yenn gars yi door a xam ñu door a génne nag li ñu denc. ndax li ñu denc ëpp sax. yi ma jot a dégg dafa mel ni euh, reggae bi daf ci dominer pourquoi nga choisir. waa non c'est selon style bi rek man xam nga damay toog ci ceenaas ni bi. jàpp bi mu ma yóbbee rek foofu laay demee ndax mën naa woy tey reggae suba mën naa ko def rythme acoustique mën naa ko def suba rythme pop yaa xam daal. album bi génn mën nañ ci xaar couleur yooyu. album moom buy ñëw moom da nga xam ne variété musique moo nga siy gis di nga siy gis lépp di nga si gis ba si rythme Baye Fall mbalax bi gars yi di def beneen façon boo xam ne Baye Fall la avec ses xiin. lan nga mën a wax ci ci woy woyu Sénégal fi mu toll noo gisee artistes yi. waaw man artistes yi dama gis ne ñëpp mbëggeel rek la ñuy woy ak ñii di woy ay taaxuraan ñii dañuy woy mbëggeel ñii taaxuraan ñii naan la chéri I love you bi ma la kiiwee bi ma bàyyee nii naa nii te ñun dañu sonn ci xeetu musique boobu ndax chaque jour répétition la te la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à mais du loolu kese ndax dafa am loo xamante ne dafa am ñaari façon musique ndax Sëñ Tuubaa daf ñu jàngal kuy woy te woyoo fa bi araf boo woy di nga ko layoo kon nag musique nag dafa doon loo xamante ne dafa war ndax day dugg ci xol musique dafa mel ni njabar tey jii benn wax mun naa la koy wax chaque jour du la def dara mais su fi ma woy ko loolu dina la dugg léegi nag kon nag loolu nag da nga war a chanter loo xamante ne ça doit être utile à tout ndax tubaab bu créé do ré laa si do loolu loolu ñi ko mën a définir ci musique bëriwul man dof mbaam bi mën naa la ko wax te loolu doo gis fenn ñu la koy wax xamuñu sens musique te fi mu jógee si yan ay yonent la jóge mu doonoon loo xam ne c'était divine gars yi bëgg ko yàq léegi di taaxuraan taas mbaq bi bëri fi. yow est-ce que est-ce que xamante nga ak artistes yu Sénégal am ngeen koy kii contact. man man artistes yi ma xam Sénégal mooy Dof Ndey ndax man ak moom ñoo defandoo lépp waaw ba si ñoo ko defandoo lépp man moom rek laa xam si Sénégal comme artiste ñi si des ñëpp man mooy loolu peut-être avec le temps mën na ñëw mais su ma la waxee dëgg dëgg dëgg dëgg te yàlla tax. waaw man ñoo ñooy sama akookoy sama artiste. ndeysaan sama waa koñ ñoom MHO baala affaire yooyu. yeah am nga ci am nga ci am nga ci droit bu baax a baax mais ban ban maison de production ngay liggéey wala amoo. waaw ñun ñun instant yi nii ñun moom nekkuñu si benn <laughs> maison de production yaa ma gën a xam suñu yenn son yëpp ñoo ko joobal presque suñu bopp ak suñu ay machine mais après

tey doo ma ñëw nii rek ma bëgg siiw wax naa la début bi jublu ma si siiw wala ñëpp xam ma wala ay affaire yooyu dafa am loo xam de mu si jub bu dee cent personne sax ñoo koy déglu sax mu jëriñ si ñaar sax moo ma gënal comme un million de personne di ma déglu te amul. sa thème yi fan ngay inspiré woo. Ah, samay thème yëpp si Serigne Touba ndax man dañ ma bind sept tonnes cinq cent ne ma woyal man amul ku man Serigne Touba moo bind sept tonnes cinq cent baay fi. foo sëñ Moussa Ka ñëw bindal ñu wala fali sëñ Mbay Jaxate ñëw bind fi sëñ Moor Kayre ñëw bind fi ñun dañu bindal ay livre ne ñu way kuy way ñoo la ëpp texte mais solon nag li ma lay wax rek nànk-nànk rek ndax ñun moom fi ñuy fi ñuy duyee moo garaaw te sëñ Mour Kara tamit mooy ki nga xamante ne tamit moo ñuy teg si temps solon leen moments ak lépp ñuy xool ñu muy doxee ñu koy doxee mais peut-être pas comme moom ni mu koy defee mais au moins dinañ jéem a topp takk ndeer bi sax xaw si am tuuti. ci musique bi am nga ci idole. kan waaw ci musique ah ci musique de xanaa moom sëñ Modou Kara rek ay sama idole à loolu moom voix bu may yéem si musique quoi bu may touché sëñ bi rek moo mën a waaw. sa projet yi fan la toll. waaw sama projet yi moom ñu ngi si ndax ñu ngi nii di waajal ubbi suñu studio. ñu ngi waajal tamit am ay festival waa cat lañ si bañ tamit yoo xamante ne da siy dugg rek waaw ñu ay waa yooyu yëpp dañ koy am na ay affaires yu bëri daal mais loo xamante ne tamit tant que matagul ba leer rek duñ ko mën a wax. musique bi boo ma ne woon lenn loo xamante ni mu yaa ngi ko ciy gis mu metti la aar bi lan la. aar bi mooy sabotage yi gars yi di def di gëmloo xale yu ndaw yi yenn woy yi ba si clip yi di leen wan ne nii ngeen war a ab yeewoo nii ngeen war a waxee nii ngeen war a comporté woo. xam nga li ma la bëgg wax loolu day détruire suñu jeunesse bi tamit ndax sëñ Touba liggéey na fi dafa xeex loolu pour loolu deñ fi xeex ko ay ati at mu ñëw fi nag gars yi bëgg a nax saayal loolu bëgg fi indiwaat li tubaab yi bëggoon ñun nag dañ fi nekk nag pour nag xoola détruire loolu fu mu amee mille ñuy yàq ñun xoola benn buy defar sax dina fa ñëw taxaw solo ko ne sa position ba xoola dafa maam mbamb yi ñu ngi fépp koñ boo dem di nga fa fekk ay baay Fall mais Baye Fall yi ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoo war a jagal fépp ndax Baye Fall mooy les bons comportement et la civilisation de l'être humain kuy seet jikko bu rafet da war a xool ci Baye Fall kuy xool ba si solin ba si lépp xam gars yi dañu foog ne Baye Fall mooy ki takk rek ay kurus ay kii yooyu déedéet solo selon ku mu neex tamit nga laxasaay ku mu am na ñoo xam tamit laxasaayuñu te ay rijaal lañu ndax rijaal moom dafa metti doon Baye Fall yomb na mais doon rijaal moo metti moo tax ma ne moo tax ma ne muri yëpp. ah tous les Baye Fall des mourides mais tous les mourides ne sont pas des Baye Fall ndax Baye Fall dafa garaaw ndax loolu leneen la mais léegi na lool nag mooy liy war a mooy éducation bi mais yenn gars yi dañuy xool yenn côté yi rek bëgg blâmer ñëpp te ñëpp yamuñ anaas bi taw yàlla moo binte wutale Ahmadou jaajëfal nañ la bu baax a baax li ñu fi jot a waxtaanee am na solo mais lan nga ci yokk loo xamante ni bëggoon nga ñu wax ci te waxuñu ko. waaye man daal li ma bëgg ñu wax mooy suñu soowu jigéen bii. mu bëgg gars yi déglu ko te bañ déglu musique te dégg liñ ciy wax ndax ñun jigéen moom son bi moom bëgg naa muy yee ñëpp ba si kuy sëyi sax ñu wax la ne eh déglul lii boo demee sa kër nii ngay toogee sa jëkkër dee ko defal lii soo ko fóotalee mu julli si xanaa xamoo yow loolu sa yaram araamal na safara xanaa xamoo nit bu mar nga may ko mu lekk xam nga yàlla xol lay fay ndax xol léegi na am na jigéen yoo xam bëgg nañu def lu baax mais xamuñu te góor amna am na ñoo xam ne seen faiblesse bobu lañuy utiliser pour di leen si nax di leen gëmloo seen bopp te amna leneen lu ñu leen war gëmloo parce que parce que ça int parce que ça n'encourage pas moo tax wax bobu non du la neex mais ñun nak ñun nak amul mu neex la amul mu naqari la deug moom dañ la koy wax ndax fi day jeex te lepp yow ma xiyaawee sama soxna ana fanu baaw lol moy delo ci waat leen seen xel. Amadou jaajëfal nañ la bu baax a baax équipe bu Allo Dakar ñu ngi lay remercier. yaay fii la rawee yéen man maa leen di bëggee. <laughs> dama lay bàyyi rek nga tëjee lenn loo xamante ne danga koy may ki nga xamante ne xam naa bokk nañ ko mën ak yow muy maam Thierno Birahim Mbacke Ndambal daaw. waaw borom daaru moom kooku moom. <laughs> tëjee dara rek <laughs> kooku moom kooku moom beneen bàyyi. bilaay wallaay talaay. daaru yaayam nooray ne borom daaru yaa ko xare woon borom daaru gàcce ngalaama borom daaru fuñ lay jëleete fan lay jëlee fan la ñuy amee ku mel ni maam Cerno Ibra Faati merci waaw ñu may ko ko bu baax a baax a baax te xam naa ni dina ko neex boroom xol bu rafet boo toogee moom rek saay su ne boo toogee moom saay su ne da ngay yaakaar ne man man la gën a bëgg képp ku toog ak moom da naan kii man la gën a bëgg ndax xolam bu rafet ñu ngi lay ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak wérle ah yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ak kanam ndax soxla nañ la soxla nañu say ñaan soxla nañu di yeewu di la gis saay su ne ay ca jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen Cheikh Internet beneen yoon incha allah ñu dikkaat ak yeneen i feem jërë jaa ngeen jëf